jërëjëf Ahmadu Bamba gën si Xaadimu Rasuul gën jërëjëf Cheikh jërëjëf Cheikh Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Bamba Bamba gën si maa lim ba soo gën si ñëpp non. Amel moo soog kii. après yow yaay dem de. après damay dawal dem. doo mën a nekk. ku nekk na teg loxo sa mbagg moom. nekk